jërë ngeen jëf waa ji ñu taal keroog ca Kaolack ay mbiram a xëy di jax-jaxi ci yéene kay bokk ci ñoom l'observateur mi xëy dellu si ak ñun ci li xew ubbil yéene bi benn waay bu ñu naan CF moo faatu ca Kaolack ñu ne ab góor jigéen lañu ami nit yu bàyyi ba ñu suul ko ci armeel ya ca lew naña seen ñu dem sulli ko diri ko ci mbedd mi sotti ko essence taal ko moom waa ji ne nañu ca Kaolack fa faatoo mbokk yi gàddu ko yóbbu Touba ba ñu yeggee daayira Muxaddamatul Xidma gi ñu dénk gestion bu armeelu Touba yi leen du ngeen ko fi suul dàq leen mbokk ya gàdduwaat néew ba ak moom Kaolack ba ñu yeggee bëgg ko suul ga mu dëkkoon waa quartier ne leen du ca dal xeexoo tàmbali ci diggante mbokki néew ba ak waa quartier ci ëllëg sa di àjjuma ji ñu bàyyi ba ay boori trois heures du matin ñu raaxalu guddi gi jël néew waa ji ñu ne ab góor jigéen la dem suul ko ci armeel yi na ñaseen ya askan wu yëg ko ci la bàyyi ñoom it guddi ñu wut seen lampi torche dugg ci armeel wër bàmmeel ba ba gis ko sulli ko diri ko génne ko armeel yi ko suur soi nañu waajooje waay bu ñu ne ab góor jigéen la moo faatu ci Kaolack ñu sul ko ci armée yi réew na ña seen am ay nit yu sulli ko taal ko libération nañu waaji Cheikh Fall la tudd ñu gënoon koo xam ci turu boy naar fanweeri at la amoon la ko tiim ko di waaye ka fecc moom mi ñu ne ab góor jigéen la tirbine mi ngi ñuy xamal yaayam ju naqaru xor la amee bi mu yëgee li xew ba moom it ca la jaaree faatu procureur Kaolack bi defub communiqué di ñaawlu li xew ba xam leen ñi ko def danañu leen topp enquête ba xam leen la war ca ñoom yoon def ko turbine mi ngi laaj ndax procureur bu Kaolack bi loolee mu bëgg def ndax dina ci dem ba jeex coowal góor jigéen loolee xew ca Kaolack moo waral point actu gis ne ministre intérieur bu bees bi di Sidiki Kaba ak ministre de la justice bu bees bi di maître Aïssata Tall Sall ni ñu tàmbalee seddul coow lu rëy mi ngi leen di xaar mi ngi ci seen kanam ñu war ko lijjanti nañu ca la ñu ngir seet nu ñu mën def ba ak déggoo am ci wàllu ligne maritime bi ci diggante DP World ak collectif gi njiital port autonome de Dakar di Mountaga Sy journal bi nee nañu moom jaare na ca fàttali collectif bi seen ay responsabilité ci ni ñu war a principe yi tënk fonctionnement portum Dakar sur 24 7 sur 7 waaye ñu respecter délai bi ñu mayee ngir wàllu enlèvement conteneur yi jëwriñ gi ñu dénk microfinance économie Ziguinchor xaalis bu toll ci 692 moom la fa baaxee nit ne financement ña jote lise ko nañu toll nañu ci 6936 yu yëngu ci secteur d'activité yu bari te wuute source nañu keroog samedi la woon xew-xew bi FONAMIF di Fonds national de la microfinance moo ko organisé woon enveloppe bu toll ci 385 millions fa génne 335 millions jëm ci wàllu subvention ak matériel ngir acteur développement yi ci Ziguinchor ci biir yéenekaay bi ministre Victorine Ndeye gën a firndeel taxawaayu gouvernement de combat politique ak l'observateur mi xëy siq waxtaan wu yaatu ak borom grand parti di Alaaji Mali Gàkku gàkku borom coalition gàkku ci jamono jooju poy actu mi ngi ñuy wax ne ci diwanu Tambacounda am na fu lu toll ci ñeen fukki élu ak ñaar yu fa booloo defub résolution ba ko ay responsable Benno Bokk Yaakaar lañu seen yéene nee nañu mooy jàppale Amadou Ba ngir mu gagné élection présidentielle 2024 waaye Tamba di Mamadou Kassé ci janoo mu doon def taskatu xibaar yi xibaar beneen ci journal Tribune coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ca Kaolack di Mouhamed Ndiaye Rahma yéenekaay bi nee nañu waa Benno booloo nañu jox ko bopp nee nañu ko wéy ngir seen candidat bi di Amadou Ba am ndam lu rëy ci présidentielle yi mu amee nag ci ndaje muñ ko doon jébale ay parrainage mu jaare ci moom Mouhamed Ndiaye Rahma sàkku ci gaayam yi ñu dakkal xiiroo be ŋaayo bi te àndandoo